Adji Dame Ndao euh, le le le le chargé de la communication de l'ensemble des artisans du Sénégal et aujourd'hui coordonnatrice de PEJA elle viendra nous expliquer pas mal de choses que vous allez comprendre dans cette émission nous allons parler avec euh, Papa Ndao qui est parti à kilomètres de Dakar pour aller nous donner des informations sur euh, le Dindi Ferlo Dindi Ferlo c'est là où il y a les chutes d'eau au niveau de Kédougou si les Niagara existent, le foot Djalan au Sénégal, nous avons les Dindi Ferlo et vous allez Mais bien avant cela, chaque matin quand on se réveille, nous on vous rappelle ce qui s'est passé pour la sur la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, c'est le 25 octobre 2021. Euh, le 25 lan moo xewoon Sénégal le 25 octobre par vous annoncer ce qui s'est passé le 25 octobre 1991. Départ de pour les premiers, premier contingent des soldats sénégalais devant participer à l'ECOMOG, la force d'interposition de la communauté économique de des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, vers le Libéria. Libéria kon dañu amoon benn génocide wala benn guerre civile et ça avait vraiment remporté euh, créé beaucoup de beaucoup de beaucoup de déséquilibre par rapport à ce pays alors le Sénégal n'a jamais été en rade en ce qui concerne le maintien et la restitution de la paix dans les pays qui la CEDEAO qui composé la CEDEAO donc bis ñi ki tey en 1991 le Sénégal takk takk seeni gawar jàmbaar yi daal di dem fa xam ne moom moo di Libéria ngir xeex libéré foofa nga xam ne moom moo di euh, askan wa le 25 octobre 2005 Abdoulaye Wade président de la République Sénégal jëlaat xaatim relation ak Chine ndax relation ak Chine bu Séné ak Sénégal dañ ko dakkaloon euh, le 9 janvier 1996 coopération boobu doon dox ci diggante Chine ak euh, Sénégal ñu daal di koy dagg ndax amaluloon njëriñ xëy na réew mi euh, Abdou Diouf dog ko bi 2005 jotee bis ni ki tey kon le président Abdoulaye de signé waat contrat ak waa Chine ngir suñu coopération mën a àndaat dal di neexaat booba nag ba ñu daggalee suñu ba ñu dogal euh, euh, nan la koy tuddatee ba ñu taxawalee suñu coopération diggante Sénégal ak Chine terewul ñu yem ca dañu signé benn contrat ak waa Taïwan. alors c'est en 2005 bis ni ki tey kon le Sénégal reprendraat ay euh, analyse ak ay maanaam analyse sax ay partenariat am ak Chine c'était au jour d'aujourd'hui aujourd'hui si on a Petersen on peut se réjouir d'avoir cette date C'est très, très important. Abdoulaye Wade s'est battu becs et ongles, corps et âme pour qu'il ne signe pas les APE. Les APE, c'est les accords de vraiment pas du tout équitable en ce qui euh, les changements parce que oui, pour un partenariat équilibré et mais les APE, à ce qui paraît, c'était pas le cas. Le 25 octobre 2013, le Sénégal participe à l'ouverture à Dakar du sommet des chefs d'État qui composent la CEDEAO, Comité économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sur les accords de partenariat économique, les APE. ñu bëri rek nee nañu ministre bi nekk ci koñ bi dootul baax le liggéeyam euh, jaaykat bi dootul baax le parce que multinationales yëpp la ñuy ubbil suñu ay porte ñu ñëw liggéey ce qui va faire euh, un lompoñement indi ay jéye wala ay tooxi doona ci euh, mbir yi Abdoulaye Wade, franchement, a toujours dit non aux APE et on avait même des slogans et des artistes qui se sont battus à ses côtés. Mais finalement, en 2013, ça a été ratifié par le Sénégal. Et quand le Sénégal ratifie ça, c'est la porte ouverte aux multinationales qui viennent compétir avec nos entrepreneurs et nos artisans locaux. Et d'ailleurs, on va en parler avec Péja. Peut-être ça va trouver quelques solutions pour mieux permettre à nos artisans de faire Euh, travaille normalement le saviez-vous ndax xamoon ngeen ne ci àdduna bi fii may wax ak lu war a tolloog deux millions ci doomu aadama jënd nañ ay terrain sur la lune ci weer wi deux millions de personnes vous pouvez ne pas me croire mais demandez à tonton Google quand j'ai vu les chiffres ça m'a fait froid dans le dos je me suis dit mais comment une personne peut acheter un terrain sur la lune regardez ça se passe sur la lune j'ai dit mais attends à quel moment tu vas voir une personne il va te vendre un terrain sur la lune est-ce que moom moom moom la lune qui t'a vendu ça comment il va gérer et moi je te vends un terrain sur la lune via et deux millions de personnes ont déjà acheté j'ai dit non weer nga dem jënd fa ay terrain léegi kan moo yor njaay moom est-ce que commune Yëmbal Nord am na droit jaay ci non mais nan waxtaan te yàlla tax mais kan moom moom weer wi ba fa boo fa bëggee terrain nga dem ci moom nga ne ko dama bëgg nga jaay ma foofu terrain mu jaay la terrain et puis c'est grave quand même de de jour en jour on se rend compte de la bêtise on ne cesse de prêtre dans la prairie de la bêtise euh, ce que xamoon ngeen ne si vous restez trois jours dans l'obscurité totale trois jours dans l'obscurité totale vous devenez aveugle définitivement boo nekkee ci lëndëm këruus goo xam ne gisoo sax sa loxo boo ko tàllalee ndax lëndëm boo ci defee ñetti fan tàggaloog sab gis-gis je pas si est-ce que vous saviez mais moi je savais pas quand j'ai vu l'information j'ai vérifié et j'ai regardé des médecins ils ont expliqué pourquoi la rétine l'iris pourquoi l'abondance ma ni ay yàlla suñu pourquoi d'ailleurs la Euh, les hommes euh, néandertals, paléolithiques, l'âge de la pierre taillée, pierre polie ont euh, eu beaucoup de, beaucoup de bien en retrouvant la, le, en créant le, le, feu pour pouvoir allumer des bougies ou allumer le feu pour avoir un peu de lumière. S'il n'y a pas de clair de lune, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. C'est ça, c'était ça, le saviez-vous. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Euh, je passe un bonjour à toutes ces personnes qui sont en ce moment en train de nous follow sur euh, la 2STV via nos réseaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur euh, YouTube. Merci d'être avec nous. Djili Fashion, maa ngi lay ziar bu baax ma Lacoste bi nice na merci beaucoup Djili. Euh, Alaaji euh, Dame maa ngi lay nuyu te di la ziar. maa ngi lay delloo ziar Alaaji. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi am tawféex bu baax a baax a baax. mbaa tout se passe alhamdulilah sant yàlla. Euh, naka yitte yi. waaw sant demoon Kaolack yaa ma gën a xam. waaw xam na yow kay moom. <laughs> alaaji léegi mën ngaa nekk GP dans le pays là. waaw demoon Kaolack yow xam nga man moom du ma toog. Euh, di jaar euh, ñi ñuy seetaan actuellement ci émission Good Morning bi di ziar aussi comme ni nga ko waxee ñi nekk aussi dans la diaspora comme Samsidine Aydara ah en ce temps ñu ngi koy bëggee. Euh, di ziar actuellement aussi tous les artisans qui nous suivent actuellement dans Good Morning ci rubrique bi parlons tourisme culture artisanat euh, parce que di am mbégte aussi ah di am tey vraiment di euh, di dalal ah une dame vraiment madame Fatimata Doucouré donc c'est elle la coordonnatrice du projet péja donc projet employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel ah donc sénégalais ñoo ko doon laaj artisan yi ah pour que Péja tout le temps yow doon na nekk sa bopp bi chaque jour ñu naan la Péja dem nga ba mujj gi xam naa ne. Péja yaa ngi tëdd ba guddi sax naan Péja. Péja la waaw Péja dara di di jaar aussi Momar mon jeune frère Pape Sidi Momar Ndaw ñu ngi lay jaar baax a baax a baax borom dëkk yu métti yi ah ay ay ay xam naa dina ñamal madame Doucouré tey dina ñu yóbbu fu sori incha allah. di ziar ñëpp ñu ñuy seetaan ak euh, vraiment nos maa ngi lay ziar. Euh, di nuyu euh, Babacar Kébé Moustapha Danfa Chimbo Junior et Yaya Diallo. Hamoy Gueye ñu ngi leen di ziar bu baax ñoom it ñu ngi ci internet bi di ñu topp jërë ngeen jëf ci loola kon tey daal lu waay bëgg xam ci Péja. danañ la ko yullil danañ yulli suñu gafaka on va parler euh, pour les gens qui sont qui gravitent autour de l'artisanat au Sénégal et qui chercheraient à avoir des solutions mm -hmm. Madame Doucouré bonjour et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation tout le plaisir est pour moi. mbaa yaa ngi si jàmm maa ngi si jàmm maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñu ngi lay fay euh, di leen euh, gërëm leen sant. si mm. invitation bi. Mm-hmm. mbaa tout se passe bien. alhamdulilah ñu ngi sant. macha allah. da ngi lay bu baax a baax xam dañuy tàmbale waxtaan wi en attendant euh, kële di kële di fële di lële mën nan ko nuyu nuyu naa maa ngi lay nuyu. mbaa yaa jàmm. maa ngi lay fay alaaji. Uh-huh. Euh, alaaji kenn nuyoo nuyoo guma kon nuyoo guma la après dinaa la nuyu nañu tàmbalee waxtaanee Péja. Mm-hmm. fii nga toog madame Doucouré dama lay booleel de xaw ma ndax yaa ngi ko doon seetaan ou pas. Mm-hmm. kuñ fi dalal ci artisan sa jooytu bi njëkk wala sa plateforme revendicative wala sa xel li ci nekk mooy ni PEJA di doxee am nañu ci bëri ñoo xam ne dañu ko wax a wax a wax a wax ba ñun ñaare dañuy dem ba am ay problème waaye lan la lees ci mën a jël comme tontu yu officiel ndem yow yi lañ dënk coordination bi tey dañu lay bàyyi ak alaaj daam bu amee lu ñu ci mën a cabaxal rek ñu cabaxal ko ci en attendant les événements Abel si c'est bon je peux je peux dire bonjour à papa Momar euh, papa Ndaw maa ngi lay ziar. maa ngi ci jàmm. ngeen di ferloo quoi. tu as été jusqu'à Dindi Ferlo quoi. c'est loin. ah mais ça. aujourd'hui on va

Babacar Gueye qui nous dit sur Facebook euh, Pape Sidi vous avez un invité de taille félicitation et mention spéciale à El Hadji Dame Babacar Gueye président de l'association des artisans euh, de Guédiawaye nous passe le bonjour nous aussi on le bonjour beaucoup. Babacar Gueye waaw ñu ngi koy nuyu. donc c'est parti waxtaan woon tàmbali. ati bisimilah ñu ngi leen di ziar di jaajëfal madame Doucouré vraiment xam naa ne. Euh, xatoon na lool pour mu ñëw aussi parce que xam naa sa programme ci semaine bi. Euh, di la jaajëfal Pape Sidi li ñuy commencé mooy euh, comme niñ la koy ni ko tàmmee di ko waxee mooy man damay bëgg xam PEJA bi tey ci leeral boo ñu doon présenter projet PEJA bi ci nan la taxawee ak depuis kañ la PEJA taxaw.